foog ñu xoolaat euh, réew mi ñi nga xamante ni ay ay ay ay la ñu mën leen a jàppale ñu mën a développer Sénégal bu dee ñoom changement lañ bëgg bu dee ñoom dañ ñoom jub tey jubal nan xool liggéeykat yi ñu mën leen a dooleel moo gën ñuy xool liggéeykat yi di leen néewal doole muusum ndox teguñu ko fi kon nag ku fi teg muusum ndox ba ñooñu di ci liggéey si gis seen bopp nan ko bàyyi mu dem ñibbi loolu loolu may wax ji voilà euh, loolu may wax ji mais présence su Bilal aussi naka nga ko gisee. ah ñun dañu fi suba ba léegi. daf leen déranger présence am Bilal Diatta kon mu ngi si bi. ONU mi ngi baat mi ngi euh, wër sànq. yow def caravane yow teg nga ko bët. laa laaj ne teg nga fi Bilal Bilal a bët soo fajar ba léegi ñu ngi fi 6 heures matin ba léegi ñu ngi fi fii cour bi yëpp ñoo ko circulé Bilal Diatta moo la gën a xam ni yëgul ñi sax waa waa Tamba xamuñu sax Bilal Diatta mu ngi mu ngi mu ngi Tamba. xam nga nag mu ngi ci réseaux nag di mel-mel yi mais fii sàmm sa kàddu moo fi nekk gëm sa bopp moo fi nekk président bu baax moom la ñu fiy dégg voilà. mais du fi dégg la nen waaw jàmm lan woote nag parce que dama tabax ci réew mi liggéey ci réew mi investir ci réew mi toju ñu taaluñu waaye képp ku ñu ñëw fii ñu dégg safaan wa loolu ko loolu ko defati ci àdduna parce que ñun bugaan moom lan am bugaan lanoo ñëw soutenir ko pour jël suñu leader yóbbu ko Dakar mu dem campagne yi leen andiwuñu fi di respecté waa Tamba nag ci accueil nga xam ne ak accueil nañu ko di leen sant bu baax fekk nañ fi ñu baax fekk nañ fi ñu bëgg président bugaan fekk nañ fi nag ñu ñeme dëgg fekk fi nag ñu bëgg Sénégal parce que bu ñu ñëwee ñu ne président Bougane nga wax dëgg yàlla duggee Tamba ba léegi Tamba dafa am naataange parce que boo xoolee secteur yëpp xam nga wala mu ngi dox secteur éphémère bi yëpp mu ngi dox boo demee yaa ngi liggéey hôtel yi fees nan restaurant yi fees nan kon loolu Bougane xéewalam ak li nga xamante nii mooy ku tedd gu nga xam ne moom la tedd moo tax Tamba am beneen changement boo xamante nii ñu ngi ñoom ñoom ñu ngi ko fi gis te remarqué na nan nan ko ñoo ko ñoo ko seen wala ba bopp bopp. waaw xam naa ci kanam naa ñëwaat waaw di wax waa Pastef nag nañu am ay tàppet lan seen làmb yu na doo nga am nekk fee di yuuxu nekk fee di yuuxu jëf moo ko gën ñun dañuy jëf ña fa ñëwoon gisu ba la ñu jëf ñoom gis nañ ko te ñoom duñ ñu ko defati ñu ngi fii tu toog di xaar suñu leader mu génn si jàmm ak ñu ànd ak moom accompagner ko voilà. ok d'accord d'accord fan noonu. Euh, euh, Kéba euh, asalaamaaleykum waa Tamba TV maa ngi leen di bu baax di am mbégte lool ngeen jox ma micro ma war a wax ci nga xam ne tey moo ñu fi indi dañ fi ñëw def délégation jóge Koupantoum man ma nekk le coordonnateur département bu gëm sa bopp bu président Bougane Gueye Dany ma àndak délégation boo xam ne nii ay responsable ay coordonnateur ñoom ñoo ànd Euh, ma ànd ak le coordonnateur bi nga xam ne tey moo ànd ak coalition sàmm sa kàddu muy Moustapha Dieng ak euh, commune bi responsable yëpp les coordonnateurs ñëw nañ euh, ñu am mbégte lool ñëw fii tey si projet ki nga xam ne tey moo ñu fi indi muy président Bougane Gueye Dany li a wax dama si am lu ma si teg mooy président Bougane dañuy ñaan yàlla ngir yàlla war a sul nañ ko bàyyi mu jóge si jàmm fii dem continuer ay liggéeyam ndax fu ñu ko jàppee liñ ko jàppee ñun teg nañ suñu suñuy bët vidéo yi gis nañ ko amul dara loo xam ne jàpp nañ ko dama doon dimbali ji askan bi nga xam ne ñoom ñoo yàqule lan moo si jar jàpp bay téye di tëj munoo def am koo xam ne dafa jóg di def te yàlla tax ngir yàlla war a suul yaa ko waroon jàpp yóbbu ko si ñi nga xam ne ñoom ñoo yàqule loolu amul nga téye ko fi ñu ngi ñaan ak justice bu fekkee dañuy àtte dëgg nañ àtte dëgg si li nga xam ne mooy président nañ ko bàyyi mu dem si këram. di leen sant nag yaan presse bi comme ni ngeen ko waxee yéen nekku leen fi kenn askan bi ngeen fi nekkal képp koo xam ne ni nag ñëw nga te askan bi nekk nga war nekkal la fi euh, danga ko war a tàllal micro mu wax li nga xam ne moom mooy ay jafe-jafe euh, sant nañ leen gërëm lañ nag ñun nag topp ñu kenn ku dul président Bougane coalition sam sa kàddu incha allah département Koubantoum nag bu soobee yàlla danañ taxaw taxawaay bu mot sëkk pour battre campagne incha allah coalition sàmm sa kàddu takk wàllu ñu jël ndam li foofu libéré Bougane. voilà dañuy continuer ba léegi reportage yi alors ñu ngi fi nag fi ñu nekk moom mooy euh, représentant Bougane Gueye Dany Sàmm Sa Kàddu et Barthélémy Dias également euh, oto yi ngeen gis yëpp oto yi Barthélémy Dias ñoom ñoo ànd ak ñoom euh, Justin yor communication nga xamante ni moom mooy mooy. un peu exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé. altercation bi nu mu nu mu demee dafa yomb amul sax altercation tooñ moo am. ay nit ñoo xam ne dañu jàpp seen leader mu nekk ci tribunal bi ñu koy atte ay responsable am ñëw tey di ko soutenir yow nga jógee fële da ngay ruube loolu lañ fi gis loolu moo fi am waa Pastef la du kenn keneen ku dul ñoom voilà leur siège est là tout près gis ngeen leen sànq ba léegi ñuy def di défilé di jaar fii di cokkaas nit ñi di leen tooñ et que aujourd'hui lu ñu def encore tapage la mais on se laissera pas faire lu ñu leen waxoon démb moom lañ leen wax tey ñoom ñoo doon wax ne bi yëfu bandi la nañ taxaw on leur laissera faire puisqu'en vérité ils ne sont pas majoritaires ici gis ngeen leen ils ont fui ce qu'ils étaient en train de faire ba ñëwee fekk nañ fi ay ripostes nañ ku nekk am nga droit campagne mais waroo fekk ay nit ba fu ñu toog nga ne da nga nekk di leen ñaawal wala di leen tooñ ils l'ont fait l'autre jour campagne ñëw nañ taxaw teg fa ay ndënd ne dañ koy tëgg tey gis ngeen leen ñun ñu ñëw taxaw devant le tribunal qu'est-ce qu'ils ont fait ñu ne dañuy nous ne sommes pas dans une république bananière bi nga xamante ne dafay am une justice à deux vitesses ça ne passera pas et on ne l'acceptera plus plus jamais ça Pastef doit s'arrêter et c'est le moment qu'il s'arrête Bilal Diatta nag on l'attendait il a trahi tout simplement ses poulains il leur avait dit qu'il qu'il allait leur donner qu'il allait leur donner rendez-vous ici il l'avait dit haut et fort moo ne woon waa Tamba nañ ko xaar moom moo fiy jiitu loolu la mi lu tax ñëwul lu waaye di woote président Bougane mu ngi subir penem dignement avec honneur avec dignité et tey bu ko neexoon am na dispositif pour taal dëkk bi am na dispositif pour jaxal dëkk bi mais dafa ko il l'a pas fait militation militants sont là en de le soutenir ñoom lan lañ fi wut moom Bilal Diatta na ñëw bu mu yónnee tey li ñu war a def mooy dem jàpp ji Abbas sàll mi nga xamante ne daf ne nañ jël ay armes ay jaas ak ay fetel ak ay paaka dem songi ay nit gaañ leen gis nañ ñu brûler siège taxawu Sénégal te ñi ko def xam nañ leen Aujourd'hui, ce qui doit se passer, c'est que le procureur, il doit s'autosaisir pour arrêter ces gens-là. Sinon, il y un grand drame durant la campagne électorale. Okay. Mais c'est grève de la faim, nous avons Bougane Gueye dañ ko entamé ndax mi ngi ci ba léegi. Président Bougane mosul def grève de faim mosu koo def président Bougane am na droit buñ ko indilee lekk boo xam ne dafa laaj procédure mu bëri loxo yu muy jaar mu ne du ko lekk. il en est plein droit jàpp dugal la ci kaso bi illégalement bu waree contrôler lekk gi lekk bu fekkee am nga xel waroo ko lekk. nul n'a le droit de le faire et il ne le fera jamais am na si plein droit moom moo jël sañ-sañ bi toog ne lekk bi nga ko koy indil ak loxo ya muy jaar ak procédure ya muy dugg lekk googu du ko lekk et que loolu la def deful grève de faim deful lenn il s'est abstenu de manger. dañoo dañoo maanaam euh, ce des qui des témoins ñoo ni dañoo dañoo dañoo témoin ni euh, Bougane dafa benn outrage à agent lan nga ma ci mën a wax. gendarme yi yéen a leen yéen yéen gis ngeen information yëpp. gendarmerie yi nee nañ président président Bougane dañ ko accusé ci PV de la ci benn communiqué boo xam ne gendarmerie dafa def un communiqué à charge ne président Bougane dafa def outrage dafa def rébellion dafa def refus d'obtempérer et que par rapport à ça tey gis nañ les témoins yi nga xam ne ñoom ñoo défilé au niveau de la gendarmerie tey gis nañ ñi nga xamante ne tey ay parmi les gendarmes dégg nga ku ne président Bougane deful outrage à un à un agent kon donc tey liñ naan liñ naan weddi gis bokk ci mooy gendarme yi ñoom seen bopp ñoo taxaw ne loolu amul beneen bi nga xamante ne tey amaat na mooy tey tey gendarme bi ci boppam nee na foofu noonu nee na gendarme bi ci boppam ay yu bëri gendarme bi ci boppam nee na foofu amul woon benn yoon boo xamante ne dañ faa defoon ay barrière amuloon cortège yu président jomay euh, Diomaye loon jaar au niveau de Bakel kon donc y avait pas de cortège y avait pas un forcing de barrage kon léegi lan lañ ñu bëgg a wax wax nga outrage gendarme yi nga xamante ne yow nee nga moo ñoom lañ tooñ outrage à un agent la gendarme yi nee nañ kenn outré wu lañ wax nga tamit ne dañoo forcer barrage ndax dafa am cortège gendarme yi nee nañ président Bougane waru fa woon jaar kon xam nga loolu tey leer na na kon donc nag tey li ñu war a def mooy bàyyi président Bougane mu dem ñibbi këram. ñu bàyyi charge yi ñuy jéem a def ak lépp lu ñuy def di ko ruumandaat pour jéem a jàpp ko te loolu noonu du yoon. léegi Boucar moom mu taxaw ba léegi ba nga xam ne moom wax ba léegi dafa moom moom moo bëgg dem waa mais waa mais tey président Bougane bu ñu fàtte dafa dem Bakel pour une mission humanitaire tey xam nga tey régime en place bi lan lañ doon ragal la xew Bakel ak lañ fa annoncé président Bougane taxaw wane ko. li nga xamante ne amu fa parce que président Bougane wax na ko nee na lépp li nga xamante ne tey day nax askan bi ak lépp li nga xamante ne tey dafa nekk politique boo xam ne politique aux allures de poudre aux yeux la du ko nangu dafay taxaw dëggal ko sénégalais yi wax leen li nga xam ne mooy dëgg bi. wax na ko Ousmane Sonko nee na ko soo waxee huit heures vingt heures ma wax vingt une soo waxee vingt une wax vingt deux heures kon léegi nag ki nga xamante ne daf taxawal sénégalais yi tout pour jàppale leen taxawu seen wet. dépassé ay millions ànd ak la coalition sàmm sa kàddu dem ba Bakel pour jàppale population Bakel ñu ne ko doo fi dugg mu ne leen kon bàyyi leen ma ma dox ñu ne ko doo dox mu taxaw ñu jàpp ko yéen gis ngeen seen yëpp brutaliser ko xotti yéreem dugal ko si biir oto garde à vue ko pare placé ko sous mandat de dépôt yóbbu ko tribunal de flagrant délit tenir kii ko neuf jours en prison alors que tribunal de flagrant délit mënoon nañ ko àtte en moins de soixante ñu dem jàpp ko traîner ko jéem ko traîner dans la campagne parce que xam nañ ne président Bougane identité remarquable la ci opposition bi xam nañ ne président Bougane bu bokkee ci campagne bi tey lépp dina leer xam nañ ne président Bougane bu bokkee ci campagne bi on sera dans une cohabitation extrême avec le le le régime en place loolu la ñu def. xam naa du ñàkk dinañ ñëwaat ci ci kanam ak yow euh, mais gis nga ñi nga xamante ni partisan wu euh, Bougane Gueye Dany gis nga ñoom ñoo toog nii gis nga ñiy jóge ba euh, Touba ñiy jóge donc xam naa dañuy doxante rek suñu père bi nga xamante ni moom mooy Abdoulaye. ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw non grand xam nañu moom mooy doon communication Bougane Gueye Dany suñu papa ñi nga xam mooy El Hadj Mbaye Pekh. Euh, donc voilà dañuy jéem a ci xool li ñu ko jege nag euh, xam naa ñu xaar rek euh, voilà ñu ñu daaneel waaw waaw gis nañ ko d'accord ñuy taxaw rek xaar c'est semon